su ma yëkkatee bis bala maa def dara naa toog ak waxtaan ak moom mu ne ma fii ngay jaar ak fii ngay jaar fii ngay jaar ma jaar foofa te fu fa jaar noonu rek ndab rek laa cee am ndani ma Touba laa jóge usine bi nga xam ne maa ngi koy doog a sañ di ko defar ba mu ba mu ba mu ñëw tey café ga ma ci njëkk a defar di 40 kilos kafe damay damay ñëw indil ko Cheikh ba Bassir mu def ko ci bisu maamam bi mu ñaanal ma ci nag suñ borom kattanal ma ci indi nag 40 kilos café indi fi cinquante kilos suukar indi fa fukki keesi fruits ak ñaar kon Mbakke lii mu def def na ko waaye bu ko defee yaw sa diggante moom def-def sax da cee bokkut ndax li ngeen ànde Serigne Touba rek ngeen àndee olof yi danoo wax ne nag bu coow bëree dëgg réer waaye yow Mbakke jàppale nga ko péete nga ko ba ñëpp xam ni feete nga ko olof yi danoo wax ne ragal péete day xañu wërsëg te ku ñëwul péete bu yàggee féete bu ku ñëwul péete bu yàggee sa péete mera bu yàlla bind nga péete ko ba xaar ko fa la xaar fekk la fa moo féeteeg yow ba Sénégal gëpp xam ni Cheikh Serigne Abo féete na ak Serigne Bassirou Khadim Awa Ba yow nag féeteeg yow du gàcca ku féeteeg yow ku ànd ak yow ndam rek lay am nee na yow moom yaay moom mooy yow yow ak moom benn ngeen nee na Cheikh Abdou Lahad sax ay jamono deen nga jéem a def marodage seen diggante ak moom pour jéem koo récupérer waaye sëñ boo moom nee na jële ko ci ay loxoom du yomb de ndax sëñ Abo moom bis bii ba ko tàmbaleeg tey sëñ Abo ñoom ñaar ñoo ko ànd nee na bat ji moo koy confectionné moo koy tiire moo ciy def itiw mooy def lépp nee na affiche yi mooy defar maquette bi te amul jot def lépp nee na lii mu def nag nee na teraanga yi duna gulet de ndax lii la séq ak moom lépp lu mu nekk bu gëstoo gis ko nee na waxu la loxol kese de waaye day ñëw jàpp ci bis bi dooleem ak taam ak xalaatam ak léppam taraanga ji nag nee na ñun ñëpp ñoo ko gisal sunu bopp nee na li muy tegtale mooy wane ne Serigne Abo lii Serigne Bassirou di def bëgg nga ci ndam de bëgg nga ci réussite bëgg na ku ñëw lekk ba suul lekk fruit naan café nee na ku la indil café Touba ak suukar ak fruit bëgg na say gan bëgg na say gay deseeru waaye bëgg na say gan naan kafe tuuba nee na sëñ boo Mbàkke jërëjëfati xolam sedd na moo ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla mu sàmm la jàpp la yow moom yaa moom benn ngeen loo nekk rek maa ngi ci ndax lu ma ne yaa ngi ci nee lii moom gaa